waaye ñu ngi jaale géejaway gépp ndaxte boo nee Abdou ni géejaway parce que nit ku nekk fa nga dëkk mayo booba nga sol te Aziz mayo bi mu sol mooy mayo géejaway ci lépp géejaway Abdou Aziz a ngi lépp lu xale yi di foye bëgg ko mu doon seen bëgg-bëgg Abdou Aziz jàppale na leen te man da di sama jarbaat ba pare da sama xarit te man moom am na jaar jaar te jaar bi lépp rafet ndax waajuram bu jigéen ñoo dëkk ba mu jógee Grand Dakar ba léegi dellu si wul te loolu jigéen ju ne juy sëy war nga koo wadduwaale ci sër sër bi muy jógee Grand Dakar xale bu ndaw la noppi xale yi waaye fa la te mos ta dellu bu fa ñëwee xew la fa ñëw waaye mi ngi toog sàmm njabootam kon xujja ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla sàmm sàmm njabootam ñuy jaale baax ay xaritam waaye di jaale Eliman la Eliman lii moo def xarit sa naqar di naqaram bànneexam di bànneex di sa bànneex te loolu nga nekk yow moom guddi ak bëccëg yenn saa yi ma woo ko am lu ma ko gërëmee mu ne ma bu ma ko gërëmee wowal élément nga gërëmee ko. kon seen ànd dafa rafet seen ànd dafa jub te seen ànd liggéey dong moo ko kon ñu ngi lay ñaanal xam nañ ni tiis wi sa tiisa naqar wi sa naqara lu ko dal dal na la te man xam naa ndax yéen ñaar ànd ngeen budul benn ñaar. ci diggu Sénégal ñëpp gis kon maa ngi ñaan seen ànd bii yal na ko yàlla saxal di jaale nag sama xarit Baye ndaxte bu nu neexoon sax bu nu ñëwee du nu jaale Abdou Aziz Baye la ñuy jaale fonk na magam respecté na ko dégg na ndigalam ci lu ko teg ca loola la ne kon Baye ñu ngi lay jaale bu baax. ndaxte xam na nu fan la bi maam bintu toll na nañu naka nga demee woon ak moom du woon sa jabar sa jigéen la woon sa la woon sa xarit la woon sa confidente la woon yàlla nag moom moom adduna moom moom alaxira mooy reye ajjanaam ngee moo ko am moo ko moom waaye seede yi lii ci li nu wax ci téere yóbbu na nit àjjana bu nu neexee ñu am yaakaar yàlla na ko yàlla xare àjjana ngi jaale mbokk gi yëpp ñi ngi jaale xarit yi ñi ngi jaale réew mi Abdou Aziz li ñëw fii ci doomi aadama ci qualité quantité ku deful lu baax du ko am tant ku deful lu baax fees goutte ba goutte circulation bi bouché les ministres de la république taalibe yi mécanicien ouvrier yi doomi réew mi ñëpp ñoom jaale si la boo deful woon lu baax doo ko am waxtaan wax dëgg ci la nit ñi kenn moomu nit lu baax rek nga leen ci baax la nu nekk ci baax la la sa baay bi yar ci nga nekk yow say rak guddi ak bëccëg asamaan kii masax te yàqul dara ma sa ni nga jàppee say rak ni nga bëggee say rak taxaw naa mu ne ma lu ma nar a dal lu nar a dal Aziz ci lu bon nag yàlla na këpp sama kaw moom mii moo ma ko wax boo ma ko waxul woon du ma ko fi waxaa man ku am fula laa yaa ma ko wax moo ma ne lu nar dal Aziz na dal sama kaw yaa ma ko wax loolu ku am rakk bëggoo ko doo ko ñaan yal na la yàlla sàmm yàlla la yàlla taxawu ni nga uufee sa rakk yi yàlla la yàlla taxawoo noonu man nag bu wax fii ci yow du ma doyal waaye lii tiis la te gaañu xale la nanu ci ànd ak dal ki gaañu du ma ko quatre-vingt-quinze ans du ma xale bu ndaw kon ku fi ñëw na nga xamante li la fi war a mooy di wax lu baax di wax nang tey dégg tey yor sa kurus di ko ñaanal mbokk yi ñu taxaw ak suñu papa Manga 2 ku ne xam ko ci làmb tey tiis bu mag dal ci monde làmb muy Aziz Ndiaye mi nga xamante ne dafa ñàkk soxnaam ñu gis ko fi père ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. su relation ak Aziz suñu relation ak Aziz relation bu rafet la relation làmb la relation frère ak mag la mu jox ma cër lool kon nag yaakaar naa ne tey su amee nakar ñun ñëpp am nakar rawatina làmb askanu làmb. kon ñu ngi ko jàllal di ñaanal soxna si dem yàlla xare ko arjana loolu moo waral suma tewaay fi ñu gis fi waa làmb yëpp ñëw fi làmb wane na ni benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ginnaaw boo làmb moo leen boole rek waaye bu dul làmb ñëpp famille la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. waaw loolu dama koy rafetlu la preuve étant di euh, Double Less ñoom Mohamed Ali yoo xam ne mu ñuy toog ndax am métitu tànk ñoom ñëpp dañuy woote. ah ñoom euh, Souleymane Diaw képp ku nekk ancienne gloire rek gis ngeen assurance Malick Diop gis ngeen Juga Dia ñëpp tew nañu fi gis ngeen Faga de ñëpp teew nañu fi donc yaakaar naa ne loolu day woon ne ñu ñoo bokk ndee ak baay lamb nag sport la compétition la soo tasee ak sa morom da ngay ut ak victoire mais su jeexee rek jeex na ñu ñëpp ay benn. di gërëm aussi promoteurs yoo xam ne ñëw nañ fi tey ménagères yi yëpp président baabu ñoom ñu ngi fi. képp koo gis rek askanu làmb CNG mu ngi waaj pour egg si egg si agul mais mu ngi waaj kon ñu ngi remercier en même temps le président Alioune Sarr boo xam ne yëpp lu am rek day yëkkati tànkam ou bien day yónnee ay ndaw foofu kon nag jaali waaj dëj bi euh, ku dem ñu koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana lan ngay wax ñi nga xamante ne dañoo bokk làmb ndax làmb tey boo ci nekkee wax sa moromu nawle lu ñaaw lu mel nii bu amee doo fi mën a teew lan ngay ban message ngay jox xale yi nga xamante ne dañoo nekk ci làmb téye ko fi mu toll nii. non loolu def ko jarul parce que ñun ñu ngi joxe ay leçons leçons yi moo gaz man ak Mbaye soo ko doogee da foog ne ñu ñoo bokkande ak Baye jox ko cër bu ma ko war a jox moom mu jox ma cër bu ma war a jox El Hadj Malick euh, assurance Malick Diop gis nga cër bu ma jox Faga 2 tu vois ne ko waa fas Ndiouga la même chose rawatina noonu donc ñëpp benn lañu. espoir bi su jotee dañuy waxante waxante lu rafet pour ëllëg ñu tasee ñu mën a gisante jaay événement taxul nga nekk noonu nit bi donc làmb ji ñu ñoo ko moom demuñ ko jéegaane fen ñu ñoo ko war a defal suñu bopp. donc kontaan naa ci xale yi parce que yaakaar naa ne ñu ngi topp ci xa euh, tànk yooyu te su gisee ni ñu euh, demee ñoom dinañ ko rafetal. donc di wax ne le 26 l'immigration clandestine la ñu def te benn gala lañ koy defee làmb. làmb tegal xale yi 2 millions kon ñu ngi wax xale yi ñu teel a ñëw ci làmb ji fim la inscrire avant 6 heures parce que 2 millions ci benn bés eh, yaakaar naa ne xale yi war nañu daw si. Wassare làmb dinañ la seet si ñu gën cee waxtaan. merci beaucoup bés boobu sax su ngeen mënee teew foofu dinaa rafet avant bés boobu aussi su ngeen ñëwee ñu waxtaan ci lu gën ko yaatal merci beaucoup. jërëjëf papa ma. jërë ngeen jëf. maa ngi lay nuy ma sant yàlla maa ngi lay fay. tey ñu fekk la ci bés bu mel nii loo ah li ma yëg li ma daan yëg rek inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun yàlla mu ñu sàkk li jiitu ñu ñëw deewoon nañu buñ fi ñëwee tamit deewaat man gisewuma ko muy dara c'est que métit nit moo koy teg moromam mais métit bi la yàlla teg kooku du métit waaw. sa relation yow ak Aziz Ndiaye. Euh, Aziz yàlla dafa def moo ma bëggal boppam waaw ba fi ma jaar ak moom yëpp sax bu ma koy wax sa yaram day daw. xeex yu bari xeex nañ ma ko Aziz day taxaw ngemb ba ma génn ci ba pare moom moo déclaré ne ipongaar yi mooy sama papa maa ko bëggal sama bopp teraanga bu nekk tamit mu séq kook man ak xaritam Eliman Lam ñoom bay Ndiaye ñoom Babacar ak ñëpp kër gi daal fi laa bokk waaw loolu moom dafa yàgg na booba du tey waaw Aziz nekk sa doom nekk koo xamante ni wax nga ko lu mu wax ne yow yaay papaam yow la bëgg yow la safoo tey mu ñàkk soxnaam ban xolub muñ la war a war a mën a am ak soxna su mel noonu ku ko ñàkk noo war a dox. déedéet nit ku ne jullit balaa ngaa tëdd danga naan man dey mën naa fee jóge man borom kër gi ci guddi gi walla sama jabar jóge fi wala sama doom jóge fi loolu kuy jullit boo ko sóoraalee rek bu li ngay tëdd naqar du doon naqar dangay xam ne rek àdduna moo mel noonu kenn dëkku fi. waaw jigéen tamit euh, nit tamit dundam dafa am àpp rek fa mu war a yem bu ko jéemee dépassé du ko mën waaw yàlla daal jiitu nañu waaw nañ defante lu baax di ko waxante yéenante jàmm te xam ne àdduna yàgg na mais nit moo fi dul yàgg te même boo fi yàggee sax coono baa ngi ñëw màgget moom beneen affaire la waaw yàlla ko yàlla xare àjjana nga nekk ci loo xamante ni lu bari ay pàq-pàq la lu mel ni làmb ñi nekk ci làmb war a xalaat bis mel nii surtout xale yi ban message nga am boo xamante ni mën nga leen koo lancer. non non di leen lancer rek ñu góorgóorlu xam nga nit boo bëggee raw nekk xale dangay am yar am teggin am sutura nangul nangoo déglu mag ñi ndax ñoo la fi jiitu waaw mais ñu góorgóorlu encore ci biir làmb ji tamit ngeen bañ ko yaakaar rek waaw boole koo jàng métier quoi moo gën parce que làmb tamit du dara. fa lañ ko defoon rek ba xaalis bu ñëw konte nag léegi d'accord bénéfice nit ñi la sax waaye ah na xale yi góorgóorlu daal moo gën. mbokk yi maa ngi taxaw ak kenn koo xamante ne kenn du ko présenté ci làmb muy Papis bu xarañ loo fépp foo gis moo du xarañ loo gis ko fa waaye tey fekk nañ ko fii ci ki nga xamante ni mooy dëju soxna Aziz Ndiaye bi génn àdduna mu ñëw waaye Modou Lo ñëwul waaye Papis bu ñëwee dafa mel ni Modou moo ñëw Modou na am na fu ñu koy dégg ne fa la nekk Papis maa nuyu. Euh, maa lay fay ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi xam waaw di ma Aziz Ndiaye bu baax euh, di ko jaale bu baax di ko jaale ak lu làmb di ko jaale famille di ko jaale ñépp waaw di ko wax daal na ko yàlla xaare aljana. da ngaa ñëw ngir jaale wala Modou moo la woo yónni la. non même bu dul dara Aziz Ndiaye xamante nañ. xam nga même bu Modou doon ñëw sax tey jii maamam dañuy ànd xam nga comme nekk fi teew nañ teewaaleel ko xam bu ko fekkoon day ñëw mais yàlla def na nekk fi looloo waral ñëwul. mais suñ ñëwee mel na ni moom ñëw na quoi. ana Modou. dafa voyagé waaw. noo noo gisee ci làmb bu ngi làmb jotee ngeen def jëfi làmb bu dul làmb nga xam ne yéen a bokk ndey yéen a bokk baay lan nga ma mën a wax ci loolu. moo lay wan ne lii espoir la rek làmb espoir la rek xam nga su boolew loolul tàggale quoi xam yàlla def na lii mooy dëgg daal lii mooy réalité yàlla na yàlla def jàmm. jaajëf jaajaf gaynde maa lay fay. tey géejawaay xewle doomu géejawaay xewle si ko xam eh, ne ku nekk xam na ni mbër yi ak fay man ne réew mi am nañ àdduna moo xewle Aziz kenn ku ne am nga cofeel si moom muy man muy yow muy keneen muy keneen ak keneen Aziz nit nit ku baax la. def naa génn ci làmb mais da ngay dégg promoteur buy tëgg sax daal ne Aziz Ndiaye laa doon jokkaloo Aziz Ndiaye moo jël banderoolam takkal ma ko. kon loolu defe naa Aziz ko ne kon am na cafeel si moom di wax nag euh, yàlla moom moo moo indi mu yóbbuwaat di wax ni yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana ji gën a kaw suuf Tiwaawan yàlla na sedd ci kawam ñun ñu bëri soxnaam ñu bëri kenn xamu ko mais Aziz la ñu bëri xam. ñu bëri Aziz lañ xam kon defe naa ne Aziz tey lu mu góor góorlu woon war na koo yokkaat ndax mbooloo mu toll nii muy teewoon ku dem teewoon gis la fa nekk xam ne loolu ñu bëri xam ñu soxnaam mais Aziz la ñëpp xam presque mais loolu rek euh, mandarga la ci Aziz war na gën a góorgóorluwaat gën a yokkaat mi ngi koy def social bi muy def mais mu gën ko defaat man li may xam naa ci dara parce que nit ñi kenn moomu leen te ñaani message yi yëpp benn la internet beeg télé yeeg yëpp benn la. ni ni ñu koy génnee ci télé bi ni ñu koy ñaanalee yëpp benn la mais di ñaanal yàlla rek yàlla yóbbu ko àjjana man li ma xam Aziz rek lay wax li ma gën a marqué ci moom bi ma nas di jëndal kër di ko laaj xaalis bi mu ne ko bu fekkee guy gi di jël xaalis bi di ko dugal feneen duma ko ko jox na jël xaalis bi investir ci wut ci kër làmb ji nangam nangam yàggul li ma gën a marqué Aziz mooy loolu. conseiller loolu jafe na ci promoteur bu leen tëgg rek bu ma yéene woon dara rakkam bu ma magam moo bokkal ndey ak baay mi ngi États-Unis muy Laye Ndiaye moom la ma booleel depuis 2012 maa ngi fa moom ak Yamou Ndiaye musul changé kanam maa ko Aziz Ndiaye mu bokkal benn baay su ma ñëwul sax damay woo kañ nga ñëw ak nangam nangam di ko jaala yaa Laay Njaay di ko jaale mère Khoudia di ko jaay Papa Alé Njaay Papa Alé buur yow buur di la ko jaale yow tamit am nga lu cër bu rëy ci Aziz yow bu lu bu rëy muy man muy keneen ak keneen keneen di ñaan yàlla yàlla yóbbu ko àjjana yàlla mënu ko yàlla ko yàlla def bokk si jërëjëf jërëjëf yàlla yëpp di profité en fait ci at bu bees bi di ziar ñëpp comme ni nga ko waxee tey moom bësu Aziz Njaay la mu nekk bés boo xam ne bés bu tiis la mais dañ koy sant yàlla comme niñ ko waxee ci diine ñun ñëpp ci yàlla lañu jóge te ci yàlla la ñuy dellu <coughs> Aziz nekk sénégalais eh, nekk suñ nawle nekkoon promoteur xam nga eh, ñun ñu nekk ay mbër yàlla def nattu ci moom kon mënul lu dul teew fi et au nom de tous les sportifs au nom de tous les lutteurs pour jaal ko di ñaan yàlla soxna Bintu mi fi jóge yàlla suñu boroom xaaree ko àjjana te teeru ko ci àjjana yu gën a kawe njaboot gu mu fi bàyyi yàlla suñu borom teg ci loxo loolu daal moo nekkoon teewaay bi di gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf. ñu gis monde lamb daje muy mbër communicateur promoteur yëpp daje. Mm-hmm. boo gisee loolu yow en tant que ban message ngay laaj ci loolu ak lan lay waaw loolu mooy en fait message bu ñu fi fekk rek parce que Sénégal dëkku teranga la déjà xam et dañuy faral di wax ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar sëriñ bi sànq dafa wax ci biir ne nekkatul ay wax mais ay jëf la et je pense que ne à travers cet acte parce que tey ñëpp c'est vrai que yéen sax ay journalistes ngeen di def seen liggéey mais de manière aussi particulière xam naa seen teewaay aussi pour seddoo bës bi ak Aziz la aussi parce que loolu mooy Sénégal parce que tamit Sénégal nekk na loo xam ne aussi et c'est vrai que mun nañ xuloo mais mun munuñ xasante ba tax na aussi tamit lu ñuy rafetlu la di ñaan jàmm ci réew mi xam nga parce que jàmm ci la lépp xaj ñaan ki fi jógee parce que tey bésu recueillement la ak prière ñaan yàlla suñu borom teeru ko ci àjjana yi gën a kawe kon ngeen baal ma nag maa ngi leen di gërëm bu baax jërë ngeen jëf merci beaucoup. kii nit ku baax la waaw Aziz moom suñu grand la suñu papa la rawatina mu nekk doomu géejawaay xam nga di jàppale jeunes yi nit ku baax la daal Aziz waaw ak baay Ndiaye xam nga ñu ngi koy ñaanal daal bu baax baax suñu boroom defal ko jàmm waaw soxnaam si dem tamit xam nga yàlla xare ko àjjana te yeexee ñu ci barki yonent bi ci barki Serigne Touba Xaadimu Rasuul eh, kontaan nañ bu baax. waaw ñuy wax inaari laaji Euh, di wax euh, yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana te mu réccu lépp lu mu doon def fii ci àdduna ñun ay doomi géejawaay lañ Aziz bu amee naqar ñun ñëpp am nañ naqar c'est la famille tey mel na ni Sénégal ñoo am naqar ndax dee buntu buntu bu ne lay fëgg yàlla na fi yam te ñu yéex ko fayante ci barke Seydina Mouhamed. sa diggante ak ñooñu samay frère lañu samay frère lañu samay frère lañu lu ma xew xewle ñoom ñoo ciy jiitu bàyyi lu mu xewle daf may woo. ñaata nga bëgg ma fay la ma ne ko bàyyi man ak yow du ay fayante bërki démb rek dama def émission génn 2S mu taxaw samay tànk jël xaalis su bari jox ma kon ñooñu bu ñu amee naqar mel na ni ñun ñoo ko bokk ñoo ko bokk sax ñoo ko bokk amul ñun ñoo ko ñoo ko bokk yàlla na fi yem ci barki Seydina Mouhamed yàlla na fi yem ñuy ñaana suñu papa Alé Ndiaye bu baax a baax a baax gudd fan ak wér yàlla na fi yem jërëjëf. ñu ngi taxaw ak Amanekh fekk ko fii ci bis bi Amanekh lu waral sa teewaay tey. waaw onze billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla bu baax julli Seydina Mohamed sant suñu ñaar waajur waaw mbokku jullit la mbokku jullit suñu mbokku jullit moo am naqar rek Aziz Ndiaye ñu ñëw jaase ko ndax ay jullit lañ ni moom tey bu ma deele woon dafay ñëw kon bu amee lu ko métti dañoo war a bàyyi lépp lu ñu jàppoon dem jaale ko loolu mooy suñu wàllu cër loolu mooy wàllu jullit mooy wàllu lislaam bon di nga ñaanal soxna si yàlla ko te jéggal ko te xaar ak képp ku mu fu fekk si barke Seydina Mohamed loolu daal moo nu fi indi woon tey doon sunuy tànk di wax allahuma salli ala Seydina Mohamed wa sallim. Ah, sa relation ak Aziz Ndiaye lan la. non dara tegoon na sama komba ak Ama Baldé mais après liñ contrat bi lépp def na ko après dasit di gërëm ministre espoir mi fi ne ak Mamboy Diawa ak sama xarit euh, Ibrahima Diawande bari ñu koy wax Ibrahima bari di ko gërëm bu baax. ndax tey nu ma mel ginnaaw yàlla na moom la incha allahu rabbi. jaajëf mbër. sama xarit. El Hadj Alé Ndiaye. El Hadj Alé Ndiaye Seydi Abdou Salamin mi ñu tuddee Abdou Aziz Ndiaye moo nu boole. mu fonk mu bëgg ma ngir kër Cheikh Seydi El Hadj Malick. mu gàmm jotee nagam mooy jiitu sama kër. ak enveloppe am. mu fab Abdou Aziz nag xiirtal ko ci kër Cheikh Seydi El Hadj Malick. Abdou Aziz ba mu juddoo ba tey. ba yàlla am lu mu ko mën loo léppam delloo na ko kër Cheikh Sidi El Hadj kon bu amee lu dal ci koom ci sunu koom ñun ñëpp la dal ay ci ko kër Xaadim Rasul ndax xam nga waa tey jii surtout Xaadim Rasul yu bari noo ngi fi jóge ca sang bu tedd ba sëñ Muntaxa kon noo ngi jàllee Abdoul Aziz Sidi Boubacar Ibn Alaaji Mansour di xalifa Tijani yónnee na fi délégation bu rëy Sidi Ahmed Sy ngi Boolaaji Abdoul Aziz Habib bu Seydi Mouhamadou Mansour Alhaji Abdou Kane bu Seydi Abdoul Aziz Al Amine famille bi daal kenn desul tey Makhtar Bay ñëw na représenté chef de l' état ci kanamu Alioune Sarr mi xam ni mooy maire bi kon Omar yu métti ngi kon daal tey Sénégal yëpp noo fi daje woon ndax Abdoul Aziz moo toll noonu yaram ak tegginam ak xàmmeem lu daal ci koom day daal sunu ko ñun ñëpp. bis bu euh, jukko ju rafet. du judd du alal. léegi la sunu borom tabaaraka wa taala taggewoon sang bu tedd ba ci Madinatul Munawwara wa maa yash'uruuna maa anta bi ni'mati rabbika bi majnuun wa innaka la ajrun ghayrun mamnuun wa innaka la alaa xuluqin aziim mooy jukko ja rek. Abdel si jukkoo may lii voilà jërëjëf jërëjëf maam yàlla na nga fi yàgg lool te wér. Basiru borom mbég meeg taar mi ñu ngi taxaw ak Sa Thiès kenn du ko présenté ci làmb tey ñu fekk ko fi dafa mel ni saa man avant tout dama lay jaale sigil ndigaale ci luñ bokk. waaw sigil sa wàll aussi di jaale euh, njabootu Baye Alla Ndiaye yëpp rawatina Aziz Ndiaye bi nga xamante ni tey moom lañ bokkal tiis bi di ci jaale Sénégal gi yëpp ndax Aziz moom Aziz ñëpp la tey nga ñëw fii sa relation ak Aziz Ndiaye rawatina soxnaam si nga xamante ne mooy Mame Binta. Mame Binta moom ñu ko xam sa bëriwul gaa. waaw man li ko daan gis sa bariwul ndax eh, li ko jëkkëram doon seede rek laa mën a dëggal. mun naa jur wàlliw ndax ku baax la nit ku nit ku bëgg sëy la te nit ku gëm yàlla la ku ku nangoo jaamu yàlla la teg ci loolu moom maa toog jëkkëram di ko seede Aziz nag sama diggante moom mooy diggante mag ak rakk la wax dëgg yàlla ndax bu ñu amee bis da ciy taxaw baax a baax a baax ak bu du sax bis kon wax dëgg yàlla dama koy ñaanal rek maam Binta mi euh, fi mu jëm daakal ko fi mu jógee ci barke Seydina Mohamed te ko ndegam am na ngërëmu jëkkëram rafet nañ ci njot te yàlla ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana ndegam àjjana yàllaa ko moom waaw. ban leçon ngay jox moroomu soxnaam yi nga xamante ni dañoo nekk seen borom kër bëgg lii lu mel nii sa borom kër gërëm la lan moo koy maye. ñu sëy roy suñuy waajur ndax tey boo xoolee moom ci li muy roy may waajuram moom la roy ci sëyam ba am li ma am te bis bi du jaas ci góor du jaas ci jigéen muy mag muy ndaw nañu nangoo sëy te góor góorlu waaye nag euh, comme bis bi tey maam Binta la yal na yàlla yërëm maam Binta xaare ko àjjana lépp li nga xamante ni yàlla suñu borom moom moom rek yàlla ko yàlla tàbbil àjjana bi gën a kawe gi ci barke Seydina Mohamed. waaw rafet nañ ci jot. jërëjëf mbokk yi ñu toog ak kenn koo xamante ne monument la ci géejuwaay muy Lirou Diane képp ku xewle dañ ko fay gis muy bànneex muy tiis tey ñu am tiis bu rëy dal ci monde làmb muy Aziz Ndiaye mu ñàkk soxnaam ban témoignage nga ñu mën a defar ci loolu. yii maa leen di ziare di ziare sa caméraman waa Wasaare di ziare seen doomu ndey seen xarit ay kiyam borom États-Unis ndax euh, ñun ay doomu géejawaay lan c'est fier sa Guédiawaye comme ni ma koy waxee Aziz Ndiaye lu dal si koom mel ni suñu ñëpp la dal ci waa Guédiawaye mu nax ci àdduna bi sax ndax Aziz nekkatul Aziz su Guédiawaye rek Aziz Aziz àdduna bi la su amee naqar ñun ñëpp am naqar su amee bànneex ñun ñëpp am bànneex yàlla na ko soxnaam si doo jàmm yàlla na soxna si maam Binta yàlla na ko yàlla xaare àjjana ndax bi ku ne lii ngay ñaan yàlla tubaari euh, tubaarikàlla xoolal tey Aziz am naqar ñëpp ñëw këru diine yi woykat yi mbëru làmb yi sportif yi tout kenn desul man de ndaw si rafet naa ci njort de yàlla koy ah rafet naa ci njort de. lu mel nii lan moo koy maye. mbaax lu koy maye ak mbaax. at wàcc sa bopp at seq ñëpp jàmm te Aziz amul fenn sens interdit këru diine yi Aziz amul fenn sens interdit. waaye jabaram ci tamit ah ñee naa ko de jigéen ñi war nañoo roy ci moom sa borom kër gërëm la say rakki borom kër gërëm la say goro gërëm la jigéen bu ne war ngaa sàkk loolu jigéen bu ne war ngaa sàkk loolu man ne ndaw si wax dëgg yàlla yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam ndax la ma gis te waawoon démb kilifa yëpp ñëw teew ñëpp di ko ñaanal te ñëpp koo wax benn benn baat la baax baax baax baax yàlla bu ko cat jut ci bàmmeelam yàlla na ko yàlla xaare na ndax de wax dëgg yàlla man rafet naa ci njot te Aziz tamit ñun ñoo ngi koy jaale ñun ay doomu géejaway lan te dañu ñoo bëgg géejaway te Aziz nekk doomu géejaway di tiitaroo géejaway bëgg géejaway kon nag su amee naxar ñoo koy ànd su amee bànneex ñoo koy ànd kon nag nii rek lañ mën a def boobu ba léegi ñoo ngi fi c'est normal loolu mooy sunu cër teg sama ginnaaw rakk Balla Gaye 2 tubaarikàlla macha allah mbari yëpp kenn desul mbër yu géej waaye ñëpp a ñëw ah euh, waxkatu làmb yi kenn desul tout journaliste yi footballeur yi joueur yi tout ministre yi ah vraiment daal euh, tubaarikàlla macha xamante woon ngeen yéen ñaar. waaw ku baax la suñu soxna la. su soxla koy kor njaak ñoo koy jaale njaak njaak ñoo ngi koy jaay ak ñoom euh, Baye Ndiaye ah ñoo ngi leen koy jaale ak xale yi ñoom ñëpp ndax koo wax ñu ne maam Binda maam Binda kon nag sant yàlla. waaw yàlla na ko yàlla xaare àjjan daal ah jigéen ñi ci kii dem nii dem roy leen ci ki dem maam bi tamit jar ah jar naa roy de koo xam ne say goro ñaanal nan la gërëm nan la sa jëkkër gërëm la ñaanal la say rakk jëkkër waxi nopp waaye waaye sant yàlla yàlla ko bu ko ba bu cet jiitu ci bàmmeelam daal yàlla ko yàlla xaare àjjana daal bisam bii de man de wax dëgg yàlla rafet naa ci njort man ah bisam bii rafet naa ci njort de jabar dañ koy tànn de jabar dañ koy tànn soxna dañ koy tànn